moo la féete suuf nga jàppe ko comme sa rakk loolu mooy li sidina cheikh santaane daana wax ne iyaakum wa libaasa xullati l amaani min makrillahi fi dunub fa innaha aynul halaak daana wax ne maa ngi leen di moytandiku loo ngeen di dogoog seeni mbokk ngeen di dogoog mboolem mbindaa fóon yi rawate na nag seen diggante yéen ñi nga xam ne yéen a bokk benn tariqa fa zuuru fi llahi taala wa waasiluu fi llahi taala wa atcimuu fi llahi taala ma stataatum fi gayri taasirin wala këdd charte bi ci tegu moo di képp ku bañ sidina cheikh radiallahu anhu nga bañ ko ku bañ sa sëriñ na nga ko bañ bul toogaaleeg moom ku sopp sa sëriñ itam nga sopp ko jàppe ko muy sa xarit donte sax bokkul ci waa tariqa bi sidina cheikh radiallahu anhu daana moytandiku lool lool ay taalibeem ñuy jaxasoog ñi nga xam ne dañoo bañ waa tariqa bi wala nga leen di sopp wala ngay lekk seeni ñam wala ngay toog ak ñoom daana wax ne inna bugdahum yasri fi qalbi man jaalasahum ka sum yal nañ ci yàlla musal loolu charte bu am solo la bu mat a bàyyi xel la charte bi ci tegu moo di sixatul ictiqaad na nga am pas-pas bu wér ci sëriñ bi nga xam ne moo la jox tariqa bi ba àgg ci sidina cheikh radiallahu taala an nga jàpp ne nga bàyyi xel lépp lu bàyyi ko ci sëriñ bi ñëw ci yow nga fexe ba am ca pas-pas bu wér ndax sa cofeel ci lay dolli ko te itam ci loolu rek la sëriñ bi mën a yéegee taalubeem ba mu àgg ila aala darajaatil kamal fa tabarakallahu yal nañ ci yàlla boole bokk na ci li nga xam ne sidina cheikh daana ko wax mu ne képp koo xam ne jàpp nga suñu werdi wii bu neexee yàlla bu ëllëgee yowmal qiyaama yàlla dina la dekkal nga bokk ci ñi nga xam ne danañu wóolu insha allahu tabaraka wa taala e waaye nag la la koy may ca dugg googu ngay dugg aljanna ci bi xayri xisaabin la la koy may moo di nga am pas-pas bu wér ak bañ a fecc ci cofeel gi dox sa digganteeg sëriñ bi ak bañ a wóolu pexem yàlla charte bi ci tegu moo di adamul intiqaadi ala cheikh radiallahu anh nga bañ a diingat sëriñ bi nga xam ne moo la jox tariqa bi ba àgg ci sidina cheikh radiallahu anhu moo xam ci ay waxam la moo xam ci ay jëfam la ndax taalibe buy diingat sëriñam loola mën naa dem ba bijjal ko alku mënees na ko cee daq min ahli xizbillahi yal nañ ci yàlla musal nañ ci yàlla musal charte bi ci tegu moo di adamul amni min makrillahi fi ayi xaalin min al axwaal bul dama dem mukk ba wóolu pexem yàlla ak noo mën a toll nag cër boo mën a am ci wàllu yàlla wala nga am ko ci wàllu àdduna moo xam xam-xam la moo xam wërsëg la moo xam juddu bu rafet la moo xam lu mu mën a doon alquran joo mokkal dem jàkk suba ak ngoon werd foo toll loolu yépp loo mën a liggéey ci wàllu yàlla itam bu mu tax mukk nga wóolu pexem yàlla suñ boroom nee na afa aminu makrallah fala yaamanu makrallahi illa alqawmu alxaasiruun charte la boo xam ne sidina cheikh radiallahu anhu ku ko bàyyi woon xel la sidina cheikh radiallahu anhu bari na ci rasail yi nga xam ne daana ko bind di ko jëmee ci taalube yi te boo demee ci jawaahirul maani nga fekk ko fa daa ci fekk lum daan bari na lum daan sant taalube yi ñu bañ a wóolu pexem yàlla nee na daal taalube bi li jaadu ci moom moo dina nekk bayna rajaa'i wal xawf bayna rajaa'i wal xawf charte bi ci tegu moo di an laa yuxbira man lam yakun axaahu fi tariqi bi xaqiqati wirdihi wirdi bi nga xam ne da nga ko jël na la wóor ne secret la bu dox sa digganteeg sëriñ bi la ko jox ba agsi ci sidna cheikh radiallahu anhu secret jàmbur nag bul dem mukk di ko wuññil koo xam ne bokku ci li anna sirra laa yudaau li gayri ahlihi loolu itam lu mat a bàyyi xel la waaye nag jël sa tariqa jël sa wird foo toll di ko tasaare ci mbedd mi koo gis wax ko ko loolu bokkul ci li nga xam ne ci maandute la bokk loolu charte la boo xam ne mag ñi bokk ci tariqa bi yépp daanañ ko bàyyiloo xel ña topp ci seen ginnaaw charte bi ci tegu moo di wirdi wi soo ko xasee ba jël itam nag bul ko caaxaane bul ko doyadal waxtu wiñ nga xam ne fas yéene nañ la ko leeralal ci kanam wirdu wu nekk lan mooy waxtoom nga fexe ba xam waxtu wi su waxtu wi jotee rek nga jooxe ko ca te bañ koo yeexe bañ koo sàggane lu dul na nga am ngant dina cheikh daana wax ne man axada wir sunu wird wi man axadahu wa tarakahu tarkan kulliyan aw tahawana bihi xallat bihi alcuqubatu wa yaatihi alhalaak sidina cheikh radiallahu anhu daana wax ne sunu werd wii ku ko jël bàyyi ko kulliyan wala boog nga doyo dal ko mbugal dana wàcc ci sa kaw te alkande itam dana la dikkal charte bi ci tegu moo di an laa yatasaddara li ictaai alwirdi min gayri idnin saxiixin bi dalik bul am fitu mukk nag jël wirdu tijaani di ko jox kenn te fekk amuloo ndigal lu wér loo xam ne ma nga bàyyikoo ca sidina cheikh radiallahu taala anhu jaar ci ñi mu jaar ba agsi ci yow ngir nga mën a joxe tariqa bi kooku itam ci charte yi la bokk yal nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne danañu sàmmonteeg charte yi nga xam ne leeral nañ ko fii benn par benn ngir ki bëgg a jël tariqa bi mu jéem a sàmmonteeg moom dama leen di bàyyi ak seen xel nag ngeen seet ndax charte yi am na ci dara loo xam ne bii génn na sharia wala boo génn na sunna nabawiya sharifa loolu mooy charte yi nga xam ne moom la ñu tëral ñeel képp ku bëgg a jàpp alwirdu tijaan yi ñeel képp koo xam ne da ngaa bëgg a dugg ci ak tariqa tijaniya war ngaa sàmmonteeg charte yi ginnaaw bu la ci yàlla boolee nag ba nga dugg ci ba noppi itam lawraat yi nga xam ne da nga koo war di def suba ak ngoon moom itam dafa am ay charte boppam am na ci charte yoo xam ne dafa war am na ci churut yoo xam ne churut kamaliya la taalibe bi war a sàmmonteeg moom charte yi nga xam ne bii da ngaa war a sàmmonteeg moom di ko jooxe di ko def ci anam bi nga xam ne noonu lañ la ko santaane mu aju ci wird wi moo di ne na nga fexe ba yii ñu lay bëgg a wax nga sàmmonteeg moom bi ci njëkk moo di ne na nga fexe ba wird wi soo ko dee jàng na nga toog ànd ak yar ànd ak toroxlu jël sa ñaari loxo teg ko ci sa ñaari pooj la boo nga teg ko ci fi nga xam ne fii fi la sa bëti oom yi nekk su ko defee nga gëmmal sa ñaari bët yëkkati sa bopp jubale ko ak penku toog toogin wu jekk noonu lañ ko santaane kooku bokk na ci charte yi nga xam ne dañ koo tëral pour boo dee jàng wird waaye du caage nag nu la neex nga tooge wala bokk fu la neex nga jëmale fa sa ay tànk dañoo bëgg nga toog toog bu am yar am teggin charte bi ci tegu mooy boo dee jàng wird wi na nga jublu penku wala wazifa wala hayla la allahuma lu dul koo xam ne dafa nekk ci tukki wala boog nga nekk ci mbooloom wazifa nga xam ne da ngeen di def géew wala ngeen di jàng al haylalatu dégg nga baada asrul jumaati nga xam ne da ngeen di def géew kooku itam nu ngeen bokke toog rek baax na ñii mën nañoo jublu penku ñii mën nañoo bañ a jublu penku waaye foofu moom benn problème doo fa am daanañu wax ne li kulli cheyin ziina wa ziinatul majalisi istiqbalul qibla jotaay lu mu mën a doon rek am na taar am na loo xam ne moo koy rafetal li nga xam ne nag mooy rafetal majalis yi nga xam ne majalisu zikri la moo di istiqbalul qibla jublu penku daanañu wax ne inna li kulli cheyin sharafan wa inna sharafa al majal al majalisi mastuqbila bihi al qibla loolu itam kon muy charte bu am solo charte bi ci tegu moo di boo dee jàng wasifa wi itam wala ngay jàng sa wird na nga fexe ba teewlu jëmmi sëriñ bi nga xam ne moo la ko jox wala boog jëmmi sidina cheikh Tijani Cherif radiallahu anhu sa kemtalaayal kàttan nga jàpp ne mi ngi toog ci sa kanam jàpp itam ne madad bi nga xam ne mooy bàyyikoo min alxadrati nabawiya alsharifa jaar ci alxadra tijaniya al ahmadiya al muhammadiya fas yéene ñëw ci yow canal bi nga xam ne ci lay jaare ba agsi ci yow mooy sëriñ bi nga xam ne moo la jokkale ci loolu loolu moom la ñu sàkku mu di ko def ci mboolem awraatam yépp loolu mat naa bàyyi xel bi ci tegu itam moo di li nga xam ne yaa ngi koy jàng ci ay baati zikr nga fexe ba xam lan lay wuntu nga fexe ba xam lan lay tekki ndax li nga xam ne dégg nga la muy tekki dana la dana tax nga mën a xam dana tax teewlu ga gën laa jàppandi waaye li ngay jàng te xamuloo lan lay firi daanaka mën nga koy jaarale ci sa làmmiñ rek muy dem ak a ñëw waaye du àgg ci sa xol li ngay jàng nag soo ko xamee xam lan lay firi xam lan lay tekki xam lan la wund nga teewlu ko dana la yomb moo tax ba dana rafet dana jaadu itam li aju ci lawraat yooyu nit kiy jàng mu laaj ko ñi nga xam ne bii yàlla may na leen ci ñu tekkil ko ko benn par benn ba mën koo dégg ndax dana ko gën a yombalal liggéey bu sell bi nga xam ne moom lay def bokk na ci charte yi itam bëgg nañu balaa ngay tàmbuli jàng sa wird moo xam sa wazifa la moo xam sa laazim la moo xam bu hayla la la am na ay maqasid ay ñaan yoo xam ne moom la ñu tëral bëgg nañ taalibe bi di ko jàng boo dikkee ci faakihatu tullaab moom Cheikh Alxaaj Malik da nga fekk ne moom wayal na la ko indil la ko ngir bëgg rek mu jàppandi ma ngi cee wax naan inni nawaytu rabbi bi tilaawa dhal wirda taadiman li dhil jalaala kada li ijlaali wal ibtigaai mardaatika al ulya bila xafaai qasdan li wajhika al karimi al aali wa muxlisan laka ma abtihaali rabbi min ajlika wa qad aqulu bi xusni imdaadika yaa muqiilu ba ñaan gi jeex loolu itam bokk na ci charte yi nga xam ne bëgg nañ taalibe bi sàmmonteeg moom bëgg nañu itam bokk na ci charte yi moo di boo dee jàng lu mel ne wird nga xam ne yow rekk yaa koy def bu ko biral na nga ko yalu bu dee lu mel ne wazifa ak hayla la itam nga xam ne nekkuloo ci mbooloo di ko def yow rekk kenn nga na nga ko yalu bul ko biral loolu bokk na ci charte yi bokk na ci charte yi itam say lawraat boo ko dee jàng na nga koy jàng-njàng mu teey waaye bu ko gaawal ba nga xam ne doo ko mën a teewlu na nga ko def tartiil njàng mu teey ndànk ndànk bu ngeen dee mbooloo itam na ngeen fexe ba seen baat yi bu mu ruube bu ñii di yëkkati ñii di wàcce maska yi itam la ca war na ngeen fexe ba sàmmonteeg moom loolu yépp bokk na ci charte yi moo tax ba boo dikkee ci saxiixul buxaari jële nañ ci qataada mu wax ne mas mas nañoo laaj anas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka la daan jànge mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njàngam njàngam moo xam ne da daan xëcc baat bu nekk la ca war mad madd bu nekk la ca war ci ay xarakaat daf ko daan joxe ba ci bismillahi rahmaani rahim su ko daan jàng bismillahi rahmaani rahim daf ko daan teylu xëcc baatu allah la mu ko war a xëcc baatu arrahman la mu ko war a xëcc mu xëcc ko baatu arrahim la mu ko war a xëcc mu xëcc ko nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan jàng fatiha sax daf ko daan dogganti alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi diin fu mu agar dafay daal di taxaw noonu lañ ko bëgge te ñaan goo xam ne gi itam yàq rek la njàng ma du sell du jaar fa mu war a jaar loolu itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama santaanewu ko daana wax ne inna allaha laa yaqbalu adduaa almalxuun ñaan goo xam ne lépp ay yàq kese la googu ñaan yàlla du ko nangu wax nañu ne am na benn nit boo xam ne mas na ñaan yàlla lu toll ci juróom benn fukki at yàlla wuyuwu ko mu dem ci benn nitu yàlla bu mag waxtaan ceeg moom waa ji ne ko dama bëgg nga wan ma ñaan gi nga daan jàng diiru juróom benn fukki at yi mu génnee ko wan ko sëriñ bi xool ñaan nga fekk mbind ma lépp di ay yàq kese mu jubbantil ko ko benn par benn defaral ko ko ba masque yi wér mbind ma tooyoon lépp mu defaral ko ko naka la ca ñaan yàlla rek yàlla daal di koy wuyu kon nag loolu mat naa bàyyi xel bi ci tegu ci charte yi moo di as sukuutu was sukuunu aqibal awraad boo defee sa wérd ba noppi na nga noppi waaye bul àggal rek tàmbali waxtaan soo noppee itam na nga dal waaw loolu bokk na ci charte yi moo tax ba boo demee ci kitaabu rimaax bu moom cheikh alxaaji omar radiallahu anhu nee na bokk na ci teggi nu tudd yàlla boo ca noppee na nga noppi te nga dal nga teewlu zikr bi nga doon def di ko jéem a jaarale ci sa làmmiñ muy daw ba àgg ci sa xol bu ko defee nag ngay fuglu waaridaat yi nga xam ne moo war a toccantikoo ci zikr boobu nga doon def pour war a agsi ci sa xol ndax mën naa am mu ñëw fekk la nga dugg ci leneen dootul agsi kooku itam ci charte yi la bokk bokk na ci charte yi itam adamul akli wa shurbi baada alfaraagi min al awraadi mubasharatan illa li darura ka shiddati juucin wa atash bul def soo noppee ci sa wird toog rek dal di commencé lekk wala nga commencé naan loolu baaxul allahuma lu dul nag koo xam ne kii darura moo ko waral koo xam ne kii dafa xiif lool wala mu mar lool bu lekkul mën naa loru kooku may nañ ko ndigal ci mu lekk wala mu naan ndaxte liñ la waxoon ci ginnaaw ne boo wirdee ba noppi na nga dal loolu dëppoowul ak dugg ci mbirum lekk tàngoor wi nga xam ne itam moom ngay yëg boo tuddee yàlla ci anam gi nga xam ne moo war tàngoor wi ngay yëg ci sa yaram boo naanee ndox daf koy fay te loolu itam taxuñoo jóg boo dikkee ci rimaax ba tey mam cheikh alxaaji omar tudd na ko nee na wal xaamisu min aadaabi dikri adamu shurbil maai ithra dikri wala fi athnaihi لأن للذكر حرارة تجلب الأنوار والنفح والتجليات والواردات loolu itam mat naa bàyyi xel bokk na ci charte yi itam yi nga xam ne tëral nañ ko moo di al ijtimaau lil wadifati wa li dikri lhaylalati bacda asri yowmi aljumua in kaana maahu ixwaanun illa li cudrin sharciy bokk na ci charte yi nga xam ne moom la ñu tëral itam moo di taalube tijaan yi nañuy dajee ci benn place di jàng wadifa taalube tijaan yi nañuy dajee ci benn place di def zikrul hayla la ginnaaw bisu ajjuma buñ jullee takkusaan ba noppi loolu daal bokk na ci li ñu santaane ndegam ay taalube tijaan a nga fa war nañoo daje allahuma lu dul nag nit ki am ngant loo xam ne sharia may na ko ko tariqa bi may na ko ko mu door a mën a def taxalluf anil jamaa moo tax ba boo dikkee ci aljawahir nee na su fekkente ne taalibe tijaan bi moom rek moom moo nekk amul yeneeni mbokki taalibeem yu mu fa nekkal yaqrawul wadifata na ko jàng moom rek su fekkente ne bii nag am na ay mbokk yu mu fa nekkal yajtamiu maa maahum wa yaqra'uunahu jamaatan wa yaqra'uunaha jamaatan nay dajeeg moom nay dajeeg ñoom ñu bokk di ko jàng ci mbooloo loolu mooy chartu wadifa su fekkente ne dafa nekk ci tukki nag mën na koo jàng moom rek loolu itam mat naa bàyyi xel moo tax ba boo dikkee ci kitaabul jawahir nee na wa min awraadihi allaazima liltariqati dicru lhaylalati baada asril jumua bokk na ci awraad yi war ngay tudd baatu hayla la ginnaaw tàkku saani aljuma ba keroog timis yi jot su fekkente ne bi am na ay mbokk yu mbokk nekkal ca dëkk ba nañu dajee di ko def loolu mooy li nga xam ne moo aju ci charte yi nga xam ne nit ki bu jëlee wér bu jëlee duggee ci tariqa bi ba noppi fas yéene jëfandikoo wirdu wi war naa sàmmoonteeg charte yooyu ngir wirdu wi muy jàng mën a wér bu loolu wéyee itam am na yeneen shuruut yoo xam ne charte yu war la waaye nag ba tey mi nga aju ci wirdu wi bi ci njëkk moo di taalibe tijaan bi na fexe ba buy jàng wirdam na laab ñaari xeeti laab yi nga xam ne téerey fiqh yi danañ ko jàngale muy tahaaratul xabasi wa tahaaratul xadas tahaaratul xabasi soo ko laabee ba noppi nañ koy teg tahaaratul xadas tahaaratul xadas nag yaa ngi ko mën a defee ci ndox wala ci tiim tahaaratul xabas nag moo di nga tàqalikook sobe soosu nga xam ne dafa jëmm nga mën koo gis teg ci sa jëm teg ci sa bët nga tàqalikook moom ba noppi boo tàqalikook moom ba noppi taxagul nag nga mën a julli wala nga mën a def li nga war a def lu dul nga xam ne dangaa jëfandikoo ndox boo demee ba ngant am nag nga tiim door a mën a jëfandikoo safarata jooju ñaari laab yooyu bu ci nekk dañoo war a sàmmonteeg moom mu mel ne kon koo xam ne kii laabuloo ci xada ci ci xadaf laabuloo itam ci xabas soo jëfandikoo wirdu wi du baax il faut que da nga koy war a baam bi ci tegu moo di nga suturaal sa awra bi ci tegu moo di nga suturaal sa awra jëlee nañ ci xadis ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas nañ ko indil benn xale boo xam ne awraam kenn suturaalu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ngeen muur xormay awraam fa inna xurmata awrati lkabiri ka xurmati awrati lkabir wala yanduru allahu ila kaashifi awratihi xormay xale xormay awray xale moo ko xormay awray mag ñoo bokk yàlla du xool mukk nit koo xam ne dafa wuññi awraam bi ci tegu itam moo di boo dee jàng wirdu wi nga bañ a wax lu dul ngànt am waaye nag bu dee sa wayjur wu góor wala sa wayjur wu jigéen mooy wax ak yow wala boog jigéen joo xam ne dafay wirdu jëkkëram di wax ak moom kooku may nañ ko ndigal ci mu tontu ñooño ba ba noppi wala mu déglu ba ñu waxanteeg ñoom ba waxanteeg moom ba noppi mu door a wéy ci wirdam loolu jële nañ ko ci sidina cheikh radiallahu anhu li jaadu ci kii wird nag mooy mu bañ a wax lu dul mu wóor ko ne wax ji mënul ñàkk su fekkente ne bi mën naa junj na junj su ko wóoree ne nag bu junjee junj gi du doy may nañ ko mu wax lu tolloog benn baat wala boog ñaari baat waaye su ko naree ëpp nag jëm kaw wirdam dafay yàqu il faut que daf koy war a baamu xanaa lu dul nag li ñu may way jur moo xam wu góor la moo xam wu jigéen la ak li ñu may jëkkër ci jabaram kooku moom wax ja du yàqu ndaxte loolu cër la boo xam ne sharia may na ko tariqa bi maye na ko ci diggante nit ak ña ko jur ak diggante jëkkër ak jabar yàlla nañ ci yàlla boole am nañ sax ñu wax ne waaye nag am na ñu wax ne wax ji nag mu dem a dem a dem itam ba jéggi dayo bu demee ba nar a jéggi dayo nag ah dana doy waar bokk na ci charte yi itam ni ñu ko waxe woon ci ginnaaw moo di ne fa tabarakallahu lu mel ne jawharatul kamal kenn mënu koo jàng te fekk laabuloo laabug ndox bi maanaa koo xam ne da nga am ngant ba mën loo jëfandikoo ndox ginnaaw bi nga laabee ci xabas ba noppi laabu xadas dese la nga war koo defee ci ndox yàlla def nga am ngant lu tax mën loo jëfandikoo ndox nga tiim bëgg a jàng sa wazifa boo agsee ba ci jawharatul kamal doo ko mën a jàng ndax jawharatul kamal dafa bokk ci charte yi nga xam ne moom la tariqa bi tëral ñu ne ku amul njàpp mënu koo jàng charte yooyu nag maam cheikh alxaaji malik radiallahu anhu indil nañu ko benn par benn boo delloo ca faakihatu tullaab da nga fekk mu diñ ko limal benn par benn mu mel ne su ko jamono bi maye woon wala boog band bi yaatu danañu jàng yooyu ab yaat ci faakihatu tullaab firi ko benn par benn su ko jamono bi maye woon danañu ko firi benn par benn bokk na ca bayit ba mu ko tàmbulee wa raabiu shuruuti sallallahu ala nabiyihi alladi istafaahu noonu la ko tàmbulee ba dem ci wa adamul amni bi makrillahi li nahyihi an amni makrillahi wa minhu jamba alcheikhi an la yasdura sabbun adawatun wala bugdun jara minha luzumu lwirdi lilwafati walictiqaadu bilshurutiyaati kada salaamatu min intiqaadi aadana allahu min alcinaadi loolu yépp itam mam cheikh alxaj malik indi na ko bokk na ca wal ijtimaau lil wadifati wajab in kaana ixwaanun wa ma xiifa alxalab loolu mooy charte yi nga xam ne moom la sidina cheikh radiallahu anhu tëral ñeel képp koo xam ne da nga bëgg a jël ak tariqa tijaniya soo ko jëlee ba noppi itam ba yàlla boole la ci nga war a jàng say lawraat yooyu charte itam la ñu tëral kon boog mel na ne suñ tariqa bii tariqab xam la war a nekk balaa nga cee dugg war ngaa xam atte yi nga xam ne ak mabaadi yi nga xam ne nit ki mënu koo doy mënul doy lu walis ko mukk ci wàllu fiq jàng xam laab naka lañ war a laabe nga jàng ko ba xam ko naka nga war a jàppe naka nga war a toppatoo sa yére ak place bi nga xam ne ci ngay julli wala ci ngay joxe sa wird moo xam ci sa yére la wala boog barab bi la wala boog ci sa yaram lépp nga war koo jàng benn par benn soo ko xamee nag boo duggee ci tariqa bu mel nii fekk mu lay sant lii dana la yomb lool mu mel ne nag kon lii moo tax ba ñenn ñi di wax naan ab tariqa tijaniya dafa diis diisaay gi yépp de moo di sukkandiku gi mu sukkandiku ci sharia mooy sukkandiku gi mu sukkandiku ci alquran ak sunna boo delloo ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala nga dellu ci alquranul karim da nga fekk ne yii mu santaane yépp ci wàllu jokk bokk toppatoo say wayjur moytandiku fen di jàng alquran bëgg jaami yàlla yépp di toppatoo sa laab am naa yaakaar ne lii lu ci nekk mënees na cee teg sa loxo ci alquranul karim wala nga teg ko ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain kon boog yal nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne danañu jëfandikoo charte yi ginnaaw bu ñu duggee ci tariqa bi ba noppi lu jiitu ñu ciy dugg ba ñu wax leen ko ak ginnaaw bu ñu duggee ba noppi ñu jéem a sàmmonteeg moom kon boog ñi nga xam ne fu leen neex ñu toog jàng seen wird du ñu sàmmonteeg barab ba laab na wala boog laabul suñ ko dee def itam du ñu sàmmonteeg jublu penku wala boog ñu toog anam ba ñu war a tooge te moo di jublu penku toog toogin wu yaru ànd ak teewlu la ngay zikr loolu itam ñi koy def war nañoo seetaat seen bopp war nañoo delluwaat ci téere yi jàngat charte yi ba mën koo joxe ci anam bi ko sidina cheikh radiallahu taala anhu santaane ñi ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala an yaj'alana min xaasati ahli hada tariq bijaahi nabiyihi alsaadiqi alamin sayidina wa mawlana muhammadin sal allahu alayhi wa sallam wa bijaahi waarithi sirrihi wa xalifatihi mawlana abi alabbasi ahmad attijaani alsharif radi allahu anhu wa axiru dacwaana an alhamdulilahi rabbil alamin ñu fas yéene nag kon insha allahu tabaraka wa taala indi band bi ci tegu muy bandu ñeenteel bi fas yéene cee leeral nag azkaar yi nga xam ne waxoon nañ leen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngal doomam jooju di sunu sëriñ di mawlaana abul abbaasi ahmad attijaani sharif radiallahu anhu waxoon nañ leen ne xeetu wirde yi muy azkar yooyu ñaari xeet la am na ci yoo xam ne dafa war am na ci yoo xamante ne bii nag warul ixtiyaariya